وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى kooku fa san yusrul usra te wama yuxne anhu maaluhu ida tarada inna alayna lil huda wa inna lana lil axirati wal ula fahirtakum naaran talasa la yaslaha ila al asqa alladi kadaba wa tawalla waaw kañ foofu laa doon jeex nag waaye nag وسيجنبه أبخى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتقاء وجه الرب الأحلى ولا سوف يرضى foofu laa doon jeex dafa am lu metti lu naqari lu bon lu ñaaw lu yàlla ne dinaa ko ñuux ay gaay ne nag dina am gaay yu ko duñ gis duñ ko dégg ñooñe laay wax aussi jën na bu xaa xel seet naa caa musal ab xaa aji ragal yàlla ji mesi ja nga xam ne yuuti dana joxe maalohoo aleelam yafa sàkkaa mbir mu mudi aji sellal xol ba ci joxe te joxe ba wa maa li ahadin indoo min ni'matin tujjisee du kenn ku ko lebaloon bor mu di ko ko fay du kenn ku mu ko defit ngir mu defal ku ko ëllëg boobu la dafa ko lurul ilab ti xaawa ci rek bëgg ngërëmal yàlla rek kooku ne wala soo fa yarda kooku laa wax aleyna wa aleyka salaam wa rahmatullahi jërëjëf waaw góor baadu nayli takarrara ru'yatu man manoon la nag Salma moo jur Abdul Muttalib Abdul Muttalib amul néegu ndey ci Makka Abdul Muttalib ah amul néegu ndey ci Makka. ba mu màggee nag màkk bëgg kaa xatal ngir loolu dafa saalit ba am lu mu diggee ci yàlla daf ko ne aw ma benn doom aw ma nijaay ju ma wéeru du petit frère du grand frère ñu ngi may siif di ma tooñ waaye billahi ba ma mayoon fukki doom yu góor yu ami fit ak jom dinaa la sant rey kenn nag ngir sant la mu wax loolu toog un an aaw dem ba am trois ans am ñaareel dem ba am fukki at am ñetteel dem ba am ñaar fukki at am ñeenteel dem bay dugg juróom fukki at a fanweeri atam am beneen jabar booba islam ñëwul muy juróom ca fanweeri atam sënkam mu am fukki doom yu góor am ko ci juróomi jigéen kii jur ñett kii jur ñett muy ñaata kii jur ñaar muy ñaata kii jur benn kii jur benn am na jabar bu ñu wax lup naa mu juróog moom ñaari gune am na ndaw suñu wax aminatu bintu xaajaar mu juróog moom kenn am na ndaw suñu wax xaalatu mu juróog moom ñaar am na fatimatu bintu omrin mu juróog moom ñett am na seneen soxna suñuy wax umu taylatu mu juróog moom ñaar mu am doom bu góor bu ñu wax ijlu banque sabar mu tawloo aar sa bopp teg ci ijlu teg ci subayru teg ci amsut teg ci biraa teg ci muxawim teg ci abdu kaxbata teg ci abdulaay teg ci abdu manaaf teg ci muy fukki doom yu góor yii mu fàtte nag la mu waxoon trente ans dafa yàgg mu am bés nag tëdd ca kaaba gay nelaw ba nelaw ya neex am ku ko ne hey mu ne bërëb mu ne ko awfil la si ahatta waxtasimi waaw góor kase waaw góor a kase yal na yàlla barilal barkeelal door ma te seydi bu judi kafe jabarallaahu kasraka yaa kafe wa kasir amraka yaa kafe mu ne bërëb mu ne ko aw fi la fi ahadta waasa bi mi la nga dige woon matal ko góor doy matal digeem góor ga daw dem kër jënd xabban bu béy bu baax ne ko fàttarandi togg ko sarax ko miskin yi defe na libre toog ba ca ëllëg sa mu dellu kaaba gaa nelawaat fa sëst ñu ne ko pëgg pëgg mu ne bëlëb ñu ne ko uusi la fi ahaata waxta fi mi mu yol mu daw ñëw kër ga na fàtta xaramtuwaa biir rey ko togg ko saraxal gént gi kat kii wax ak moom daf ko naan matalal la nga digge woon rek mu daw reyam xar déy togg ko nelawaat ñu ne ko matalal la nga digge woon mu rey xar saraxe ko nelawaat ci ëllëg sa ñu ne ci ko aw fi la fi ahata waxta fi nii waaye góor sa wax ja am na loo waxoon matal ko mu daw rey nag waaw kañ Papa Ndiaye sarkal jërëjëf ay xabban saraxe ko nelawaat ñu ne ko aw fi la fi hët waata bi mi mu dem rey gileem saraxe ko ci ëllëg sa ñu ne ko aw fi la fi ahata waxta bi mi innaka nasarta li rabbika tasbiixu ibnin min awlaadika xawfi hey bàyyil yi ngay rey bul jeexal doomi jàmbur yi ci sa doom yi yaa noon boo amee fukki doom rey ca kenn ka kon am nga fukk wañña leen defal li nga waxante woon ak yàlla bay alaaji malik ne waxa takarrara takarrara mooy lu ñëw ñëwat ñëwat ñëwat ñaata yoon la ñëw ca béy wa ca xarma ca nag wa ca gileem ga cinquante fois kon waxata karara ñëw nu ñëwaat ku ñëw ruuyatoy faayil ja géntug man kaaka yaqulu mu ngi koy wax ci yoon wu nekk ofil la si axata waxta si bi quatrième fois ba ne ko nit nga digge woon réel nit ka ba mu ko waxee loolu alaaji Malik na façon yeewu ni lu keroog wax uute naaj ya mu daan yeewu dañu ko daan wax matal la nga dige ñu ne Maodo na mu yeewoo mu ne lan balaa guddi شديدا على كونه جامعا ديني على كونه مسالما فخرج الصعب خارجا بالوالد الكريم خلاص جزاه الله وانا خيرا سيد مالك جامعا ديني مساهما خارج الرجال بالوالد الكرم amul yeewu mu yeewu beneen façon ñu yeewu déglu leen de am la galaxas ci waale kër ga la Alaaji Malik wax Abdul Mutalib jóg ca taati Kaaba ga daw jëm kër ga na deret Maodo ne foofu tey xasa mu yeewu mu tëllaa di seen mbir mu mu di làmboo xam na njaqare su di doon njaqare gu tara tara tara tara uuteeg santaane bi yàlla bi jafeñ rey doom juuy juuy jurit metti waaye yonent bi daan nañ ko wax mënu laa bañ a goro yaa yaa juddoo ci ñaari maam yu ñuy rendi maamam mi jur baayam yeew nañ ko pour rendi ko yàllaa ca wax maam maatam ma ñuy wax Isaaxa mbaa Ismaila yeew nañ ko pour rendi ko yàllaa ko wax moo tax ñu di ko wax ibnu sabi ayn doomi ñaari ku ñu rendi ki kenn kaa di Ismaila mbaa Isaaxa kenn kay di Abdoulaye baayam Ibrahima góor gu baax gu gore ga yàlla ne wat taxasa allahu Ibrahima xalila wat taxasa def na ku def laawu yàlla ku mu def Ibrahima lu mu ko def xalilan ab xarit taxasa fii lu yàqin la fii lu yàqin day na sab ñaari mafool kon Ibrahima mafoolam la walla xalilan di musaani kon wat taxasa laahu di faayin Ibrahima xalila téere yi ne nañu yàllaa yooyu def Ibrahima xarit Ibrahima mat na xarit jar naa def xarit def na ñetti yëf lu jara defee xarit ñàkk naa leen yépp ngir yàlla xëy na doomam ngir yàlla nangu nañu njëñ ko sànni ci safara ngir yàlla benn yor yor ku bari aleel la woon amoon na juróom ñaar amoon na téeméeri junney xaj xaj bu ne gétt lay topp di ko sànn xaj bu ci nekk kuli gi ca sa baat wurusu ngalam la digg ba jamoon lañ ca def xaj yooyu mos na topp gàtta yooyu genn tàkkusaan mbaa yoor yoor Ibrahima yëg ci benn montagne tiim leen mel na malaaka di ko nattu ngir li ko yàlla def xarit lu ko waral ñëw ba ci wetam soppeeku nit dal di tudda yàlla ne subuuxun xuddoosun olof yooyu wax subuuxun subuuxun baaxul subuuxun a baax siin baax waaw ab lonk gu kenn tombul sabahun qudoosun ñu ne su booxun qudoosun def kaw ay loola diw takk loolu la malaaka ma wax tur wa neex ci Ibrahima mu ne gees ne ko tudde sama sang bi waay mu mel ni Ibu Saaxo moo way ci wetu sow wala yëpp a a a Idrissa mbaa xarit yi fi toog yëpp na muy kontaane na mu lay antana jox Ibrahima ne ku tudd fii sama soppe bi malaaka ma ne mes réer ko mu ne waroon naa feeñ su feeñoon dellu ca allergie ma dog ko ñetti dog mu jël benn malaaka ma ne sa fekk pour natt ko wax baat ya mu dog gàtte ya xaj ya trois parties jox ko benn dàq ñaar bi dox ay jéego ne ko gees na boo dellu woon ci baat yi jël benn mocc ci béet malaaka ma tàkkaraaru baat ya mu jox ko benn mocc ba defe benn baraktiku ba neex tuuwa neex ko mu neeti ko boo waxoon bi ci des jël li ci des malaaka ma wax ko mu jox ko xaj ya gàtt ya ñibbee loxoy neen ba mu demee bay dugg këram la ko malaaka ma dogale na ko duma nit ama ci aleel soxla borom bee la def xarit rek ma di la natt lu tax waaye aleel jikku ko anta na ñàkk ngir dégg sang turu sa soppe rek lañ la defa xarit mat ma ko jëlal sa aleel lew na la ba laakra yàlla joxoon la ko def ibrahima yeeyoo naa def xarit yàlla ne wat taxasa laahu ibrahima xalila mu toog benn bés am doom sunu borom di ko natt ne ko sa xol bi ci laay tëdd xarit ci xol lay nekk yàlla xejul ci àddina yàlla xejul ci asamaan yi juróom-ñaar yàlla xejul ci mtaax yàlla xejul ci bildin fenn rek la yàlla xel xolab julit mun na caa fanaan leng mooy néegam it mu ne ko nag sama néeg boobu léeg-léeg ma dugg ci am ko ma fi dajal fekk Ibrahima dafa soppa doom ci ci xol mu ne ko nag yàlla na ko nag kooku may dajeel na génn mbaa ma génn Ibrahima ne doom jooju la xam naa kan la Ismaïla rek laa sopp mbaa Isaaxa bay tax ma di ko fàttaliku billaahi du ma ko joxe jàngaat léegi sama xel dem ci du ma ko joxe métti it léegi sama xel dem ci dama ko daan fàttaren bi ba yàlla xam na yemalu ma ko kenn xëy nag wax ko tiis mu gaaraan ko ne ko yaa bunni inni areeti man na min nas bukka fantur maa waa sara xale bi goro ne ko yaa bëccëf almaatumu te te jubal insha allah min asaabirin alquran fa lama aslama wa tadoo lil jibbin wa nadina wa am yaa ibrahima xasada taaruya innaka zalika nujzil muhsinin doom bi raam na dafa mel ni dama gént ñu ma naara rey mu ne ko bàyyi waxal piir bul tiit du ma trahir sant bu la sa borom bi sant yàgg na daa ma fekk may gor gu nangu te yëpp soppale ci li nga bëgg mu das paakaam pare buumam root sa palaat jox goos bi ñu jiit lay def iblis soppeeku nit ngir toroxal Ibrahima ak rusloo yàlla la doon jéem dab ko dem sa yaay jane ko gis nga ngóor sëlee yóbbu sa doom ja ëccëfi sa doom yi wujj ji da koy reyikat mu ne ko yaa mën a fen na nit di jure doom di ko rey mu ne ko def na yàllaa ko ko santeey mu ne ko ah santaane bi yàlla day def rek laa ci xam comme yàlla la day def rek def rek man sax bu yàlla waxoon na ma ci boole mu def xale bi ne ko foo jëm mu ne ànd ak sama baay fii mu taxanal sama yaay may indil ko ko mu ne ko ah ah da lay rey mu ne ko kenn doom doom rey ko mu ne def na yàllaa ko ko santeey mu ne ko santaane bi yàlla def laa ci xam fële iblis jaaxlee nag toppaleen di leen seetaan ibrahima nga dëkk booba màgg teqtal xale yi moo tax alaaji malik ne werante wi ñuy reyante ismaila la ñu rey mbaa isaaqa la ñu rey neex naa arbitre werante wi ñuy reyante ismaila la ñu rey mbaa isaaqa la ñu rey neex naa arbitre ñu ne ko nan la mu ne ismaila ak isaaqa góor gee leen bokk jur waaye kii dafa dëkkoon màkk kii dëkk baytul maqaddas su fekkee rey gi baytul maqaddas la ñu xam ne que foo dëkkoon la mooy isaaqa bu rey gi dee màkk ñu xam ne ismaila la ismaila doon apprenti papa bi ñu tabax kaaba bi comme nag rey gi ne nañu minan la moo tax ñu dafa rey xar ya sànni yi ñuy sànni jémbaraayu mooy sànni ya góor gi doon sànni iblis pour mu wàññeeku di ko bëgg a yàqal kon kañ rey gi ismaila la isaaka la woon a xëy maa ngi dem iblis toog di ko xool pour que sànni ko ca Aqaba am na jamratu bu tudd Aqaba am na bu tudd Wusta am na bu tudd Uula léppi aj dafa tóol tawaaf yi dafa tóol trois la jambara yi trois la façon aj yi trois la dafa am aj bu ñuy wax lifraat ak tamaton ak iqraan mooy ñetti façon aj am jamratul uule ak wustaak aqaba am tawaaful ifaadati ak tawaaful xuduumi ak widaa waaw ayaami minan talaasa fa man tahazzala fi yawmayni fala isma alay wa man taaqara it fala isma alay alaaji mandir nuyu na la yére yi yal na ko yàlla sàng ni baayam te defal ko moom sutura ci kaw suuf bu ko fekkee it yal na ko sàng noom defal ko julit yépp nag ñépp ñépp ñépp ñépp bi jaay rasulillah waaw góor a gay man soo gay dem ku ñu wax Abdoulaye siyaara dem ci armeel ya siyaara fa bi ma wàññeekoo ndar fa laa jaar ki ma àndal nag fàtte naa koo yee alaaji daraa mi booba fa nekk bu la yóbboo nga siyaare pàppaam siyaare ñi fa tëdd ba noppi am na fu muy taxaw ne la siyaaraal fii te sarax si borom fukki lixlaas ak benn foofa nag defaguñ fa kenn moom la tippoo pour boppam la bërki démb mi siyaare ba noppi mu taxaw fa ne ngeen ko sarax ko fii fukk ak benn lixlaas ma fàttee wax nag xale bi ne ko foofu mu doon wax pour boppam la bàmmeelam a ngoog xam nga ki xam bàmmeelam ba bër bu set mu siyaare ji ko kooku xam na ne dina dem biir suuf waaye nag ñun dañuy def ne buñ bu ñu nee fii lañ muy suur rek keroog nga dee loolu ngay foog doo ko óoloo wax ñu boo waxtaanee dee sax ñu jub ñu bi ah ah Ibrahima loolu mu dépensé ku ko dépensé ci nit mu jara dem xarit ñu ngi ca doom ja ni dee na xarit doom ji nangu ni lay sa doom nekkee Ibrahima nangu Iblis di leen seetaan mu sànni ko xeer mu réer ko ñu dox tuuti mu feeñaat mu sànni ko xeer mu réer ko mu dox tuuti mu feeñaat mu sànni ko xeer doom ji ne ko papa dem bi sori na fii doy na foo defale yàlla mu gis li ma lay dénk bariwul na sa saatu ñaw na sa loxo bar dee dafa métti takkal samay bët bëti njureel dafa métti defee nel ma sama yére sa xel bu mu ci daa takka deret léegi sama yaay di ko fàtte te nga ne ko mu muñ sa deteeg yàlla Ibrahima daf fàtte ba mu ñëw mu njañ xale bi nërmeel ko yàlla tàngam lu rek moo yéex a wuyu ku ma sa diggaaleeg moom boo boo boo boo xoolee xet daw mbaa nga dellu ginnaaw dina pat tàngam laa tàngam lu ba nga defee ne nekk fa mbaa yëgul waaye bés bu waloo rek mu sotti Ibrahima yee loxoy xale ba nërmeel ko dem bay dawal paaka bi xale bi yuux Ibrahima tiit na ko doom lu xew mbaa du dang may or mu ne ko yeewi ma bul ma yeew doon maa rey boo ma yeewee door maa rey day mel ni boo ma yeewi woon ma daw mbaa du ma résister yeewi ma ba ma liibar ma toog xaar paaka bi Ibrahima dagg buum mu sukk ñaari tànkam malaaka yëpp jooye ndox junne yëpp yelloo ndox yàlla tànkam Ibrahima dawal paaka bi ci los bi paaka ba të mu dawalaas ko los bi dogul mu dawalaas ko los bi dogul xale bi tiin ko na ko papa bul war yàlla ngir bëgg a njuri suñ borom nga digal matale li nga defal Ibrahima essayé paaka ba mu dog xeer bi mu yoroon mu dawal ko ci put mi mu të mu ne paaka bi bul ma jaaxal di xotti xeer di dogi bañ te mënu laa dog putum nit paaka ba wax nag waat wóor ne ko mënumaa dox ci ñaari commandement laa nekk baynal jëlili wal xalil jëlil ak may commandé xalil ak may commandé yàllaa ngi naan ma bul dox nga naan ma dogal du ma toppatoo li nga wax li yàlla wax laay dégg suñ borom nag ne fa fa fa fa day naaxu bi safin asimi mu ne jibril gaawal ma gaawal gaawal jaaral li ma ci asmaani juróom-ñaar am xara nga ca àjjana mu xaabil baa moo woon ci affaire am mbaak xaabil xaabil a ko joxe woon ca affaire am mbaak xaabil dawal jëlil xaram jaaral ci asamaan yi juróom-ñaar roof ko diggante paaka booba ak xale booba bu paaka bi dogee putam xale bi te xar mi ak siwul ma far surtout jibril ne na ñaar yoon laa mësa tiit ba laaj renfort ci reeri na bi leeri na bi ne na kaw ba ma ne bi te bul woon leer maas ma ni ñuy maasa batiri sama leer amul woon doole yi noona waaye njool màkkaa ma dabaatal ak leer ma bët asamaan yi juróom-ñaar dungóob xar mooma bëtt suuf yi juróom-ñaar rocc goos ba roof ko ibrahima dawal paaka ba put mën a tappit mun a bismillah ayo ndeysaan xale ba ne wallahu akbar malaaka ne la ilaha illallah borom alquran ne wa faddaynaahu maa daba xale bi bi sëbin ak gàtt asimin wa barakna alayhi wa fil axirin salaamun ala ibrahima innaka salika najzil muhsinina noonu nag la sunu borom dogale maam ibrahima affaire ba dina bi ñëwee di ko ñëwee ak yool ba yàlla ne ko yaay sama xale mën naa may sa gaay yool bu tol noonu te duñu def noonu lambaatul ba xam woon weer la ko Ibrahima defoon nabi di ko laal dana ko weeru tëbaski la ko def maam Ibrahima tëbaski la ko def mu ne ko ban heure la ko defoon mu ne ko yoor yoor mu ne ko mboolem saw xeet ku xaar ba tëbaski tool teru nga xaar ba maam fukki fan nga jëndam xar julli ñaari rak rey ko ca yoor yoor dinaa la jox yooli ko rey doonu moo tax muy tëbaski tëbaski neex dagan su amoon lu yàlla dul fay kon tabaski du ci fay dara xama pourquoi fay yafal sam xar ba mu duuf nga xëy toilette ba rafet gisee ni nga ne moon fóon leen ñoo ne ko fàpparendi nga la ko xaat res wa wàjjal la faar ya fab biir ba defal la ko baaxe la ca def nga feel wékk ñu fay la ajjana l'islam rek ko oome noonu pourquoi
حمدت بنور صلاك حمدت بنور صلاك بدن وغا قدرت بنور صلاك ترزقك تستجير وتقضي بما
waaw gaa yi ma ne ñaari yëf yooyu Ibrahima defal yàlla ku leen ko defaloon du ngeen ko def xarit yàlla leen gën a gore fuuf ñaara ngoog ñetti yëf laa leen waxoon desul bennam yeeyoon nañ ko sànni ci safara ngir moom keroog ba mu ne ma haasa tamasilu lati antum laha aatifuuna espèce statue yi ma gis kër gu ne am ci benn bu yor yor yee ngeen ñëw ku ne di fi sëgg lu ko waral mu laaj ko papa ñu ne ko wajadna abaana kasaalika yafaluun dooj nga te sopp Ibrahima kii cosaan la fi sunu maam yépp lii la ñu nekke woon mu ne wow yii ngeen def yàlla ñu ne waaw mu ne hal yasmaukum istadawna aw yanfaukum aw yudiruna waaw bu ngeen leen ñaanee dinañ nangu su ngeen amee lor dañ leen ko ba ma ñu ne ko sa wax ji bari na loolu xamuñu ci dara mu ne kon ufin lakum wa lima taabudoon su bokkun ma leen ak seeni yàlla yàlla ji mënu la wuyu oote munaw la wallu ku ne ci tiis mënu la dimbali ko ne ci aajo mënu la fajal kenn soxla seen yàlla yii de wóor na ma ne ba su ma ko jekkoo dinaa jëfanteeg ñoom wallahi la kiddanaa asnaamakum baada an tuwallu mudabiriin baraawoon nañu habitude at mu nekk fukki fan ak juróom-ñeenti sam xarit dañuy évacuer dëkk ba am na place bu ñuy def feetukaay fa la ñuy feet avant ñu dem nag dañuy togg ñam bàyyi ko ci espace yooyu dem bu ñu retourné nag jaar kii naan sama yàlla gërëm na ma lekk na sama ñam keroog ba ñu defee affaire bi nag di évacuer dëkk bi Ibrahima dafa dem ba ci digg bi mu naj biir bi tëdd na sama biir day métti daanu sama biir day métti yooyu te du dëgg moo tax bu bés pencee buñ ko ne nañ dem ci yàlla mën a ñeme ñemaa dem mas naa fen inni saqim la wax tëdd fa di onk ñu teg mu yuqantul di yuqantul ba seen ñu barak talaayu mu dem ca xërëm yi fekk ñam yaa ngi tegu mu ne maa lakum laa taakuluuna du ngeen lekk ñu ne pap mu ne maa lakum laa tantiquuna pourquoi du ngeen tontu ñu ne pap mu ne ŋaas semmiñ ba naka ca benn këram faaj mun a jañ jañ mu dem ca ba ca def naka ko faaj mun a jañ jañ ba mu des xërëm ba ca gën a rëy mu fab semmiñ ba wékk ko ca daw dem gars yi jóge ca feet ja nag daw jëm si ci ci ci ca place ba naka lañ ne deret alxuraan ne xaaloo man faala xaasa bi aalihatina mu yéen ku def sunu yàlla yi jëfin yi ku ñemeñ lépp ko ñemeñ soow la jëpp alxuraan wax am ku ne samina fatan yudkur